fii doom di sosoo ak fu mu juddoo bu dee juróomi weer suñu tëni sama doom ndax weer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la gën bari mbaa fan weer kon juróom benn weer yi soo amee juróomi weer ak ñaar fukki fan ak juróom doom mën na fay mat fi fi mat ëmb yi ak moo tax jigéen fu ngeen tàggoo nit ñi ci bari faral ko waaye war nañ ko visiter xam ci lu mu nekk ndax ëmb dana laxasu ñeenti ak ba juróomi at waaw léegi nag boo tàggoo jigéen mu am ñeenti at am doom looy wax mu am juróomi at am doom looy wax faw ñu ngi visiter ko ba xam ne ndax dana làqu waaw am naa Maalik radiyallaahu anhu ñetti at la ko yaay bam yi daje moom mooy sariya bi ci kaw waaye nag xam àq ji muy àtt bi ci biir loolu moo tax bu bu suñu kër nga am semaine rek am doom loolu mooy sa ëmb waaye bu ñu amee ñeenti weer te kii da ngay compter yow ba ba murid ndax murid gi mooy sa ak sa mu ne loolu nag bi ko sunu nitu bañee na ngir na leer nañ la ko ñeel leen ni sama sama kata man yàlla amul lu di lépp gàttal ci tàmbali bin ak ànd ak ba àggal ak bind wa taqiru wa nuqiru borom ne ma sama fe la am ci biir kàmbur maa nasaaw na ma sotte la ma soobee waaw arxam saxaax ne ci bir arham sahah moy mbuus ñu doom ji lépp ci doom ji ci mbuus lay nekk daa ratax a ratax ratax te du xëtt dugal ñu moom la doom bi juddu waale moom lay nekk ci xol moo tax lu métti bi yaay juddu biir dara yaay juddu ko wala feebar dara lépp noonu lay mel mu ne da jëlee jëm ci dig Moussa man bu ñu tudd kët mooy waxtu mu war a juddu waxtu mu war a juddu moo tax ñu ni waxtu mu war a juddu comme du rëcc du ëpp du yées bu jaamu yàlla jotee wax bu mu ëpp bu mu yées ndax bu faatu jotee du ëpp du yées de neen sama togg nag nu ko ko ma génnee leen nag ci seen biir yaay tiflan ngeen nekk di ay xale tiflan waaw tiflu radee su ma tegee naa ba nag ma dundal leen nag bàyyi leen nag ngeen di jéem di jéem di jëmee di jéem di jéem ba ba ba ëpp seen bàyyi sax ak seen yaay ci jënd loolu nag borom ne li tax ma dem mooy li tab loxo ngir nga ñu asuddukum seenu dëgër maanaam ma toog kàttan mooy fan weeri at boo amee fanweer bi bëgg ñii bu amul doole dootu ko am boo amul xel dootu ko am maanaam ñeent fukki bu amul lam di ngay def fanweeri at ak ñeent bu amul lam dootu amul lam mu ne nag wa minkum am na ci yenn man ñoo xam ne yu tawafaa def na leen faat lu njëkk ñuy dëgër ndax am na ñoo xam ne seen wàll ci àdduna mooy jooy ñu leen rek ñu dellu amul beneen mission ba mu juddoo jooy tegu te dara ba muy nàmp ba mu feree la dem noonu lañ ko toppale toppale ba nga àgg fa yàlla na mu ne wa minkum am na ci yéen man yuraddu koo xam dañ koy delloo nag ilaa arsalil umri te gën jaawaat ci dund gën jaawaat ci dund mooy lan màggat bu ànd sa lépp dem lépp lu nekk màggat day mel ni perméable bi ñu gonflé ba fees dell ñu tëj ko noonu muy mel nga bënd ko bën bën bu tuuti mu naan cus ndànk di nag ba jeex day jeex noonu noonu ak màggat mel lépp lu tax lu lay mag rek da koy jël ak màggat a may des doo jóg na la neexee doo toog na la neexee doo wëlbati mu mën a doon doo ko def noonu ko bëgg ñii dañ lay wëlbati wala ñu lay lëng lu ci mën aw rek noonu lay demee umru nag mu ngi dala ci juróom fukk ci juróom am na ñuy déedéet juróom-ñaar boo amee juróom moom jubóo nañu loo defate jàmbur ko defal am loo defate lu mu mën a doon jàmbur ko defal waaye nag say xoor mi ngi dem ci juróom-ñaar fukki at ak juróom ñu ne déedéet juróom-ñett fukki at ñu ni déedéet tisxoona tisxoona moom boo ko xasee am moom yeggal la juróom-ñett fukki ak loo mën a toll rek man nga am kàttan di yéeg waaye nga jeexal ko te danga xam ne yow mii doo werante ne jeexal la waaye nag képp ku dëkkee jàng alxuraan li gën a bari ak gis ak i bëñ doo ko ñàkk ak naag jàngat alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg buy faatu xel ba dafay ne bët ya dafay ne xalaat ba dafay ne ci sell du jaxasoo du jaxase la gën a bari lañuy wax la ndax lu ne am na naa bi ca biir mu ne nag waxtaraa da nga jàkkaarloo al arda suuf sa nag ma nga ca ma ci jëlal du kuba de xaame datan muy aji wow koom ndax géej amatul dex amatul box box amatul Ita ansana humasane bumawace aleha ce so almanok ita sanurabak ita rabak modal di yenggutu fu dali gemko mo muka misale gode agmak awa bot nit bo bu dahomene suku bo bot sidiu bonenggara dahoi gitu bonenggara dahoi gitu bonenggara dahoi gitu mone xale ku ne ñu koy mën a dugal ku ne dañ la mën a génne waaye bu bu bu bu bu bu ndox di fuur daal di ubbeeku gàncax génn di ko ne mooy boo robee ñeent bu juróom lépp loo xam nekkoon ci ak ndaw ak yi ñàkk da nekk insaan boo xam ne kaamil ngay doon ci xel ak xalaat ak jëmm loolu dugg di ko xam loolu génn di ko xam luñ lay digal di nga ko xam luñ mooy wa an te mu daal sax nag kullu saw din bépp xeet nag ba yi jën buy aji rafet waaw xam nga ni kay xale lu góor boo xamante ni yor na dara ñu ni ko koo ngi di ko bëgg bu dee bu dee jul bi nga bëgg a bu dee xarit bi nga bëgg muy sa xarit bu dee mbokk bi nga bëgg muy sa ndax melawal ak dayawal ak xam nga boobu suuf si di nga gis mu naat naate boo xam ne boo ko xoolee di ko ba muy tàmbali bi du nga xamante ni la mu gënoon bëgg lay gën a tële bu ko jógee sax mu dund loolu nee na loolu day ah, li tax yàlla dina ko wax mooy bi am na laa naka borom bi xubarum ci lu wér xam muy dëgg muy de kon ku ma jàpp-jàpp nga dëgg ku ma bàyyi bàyyi nga dëgg de wa annahu te nag moom borom bi wa taala ba tey kat yuhyi mooy dundal al mawtaa faatu de ndax moo leen moo leen dundal loolu moo leen ko andi woon moo leen dundal loolu ndax keneen kuy bañ a nekk bi kuy rey nekk bi kuy garde nekk bi te wa annoon naka moom ñetti am na la de xadirul añi attan ala kuy sëñ ci lu ko soob te lu ko soob waaw waaw boo leen ni ko soob lu ne mel na nam ko soob ba tey wa ann sa at naka yomal xiyam nag nu mu wóor la ni aatiyatun ah, aji ñëwlu te laa rey ba dét sikki sàkka fii aar ci jikku yomal xiyam de ndax def mu ne dëggu nga gan bi ñëw yomal xiyam bis bu nekk dugg ku ñëw xeex gën si waat di nekk si dugg alors julli ñu doon hay aata borom dalee dane ak yay yarta edi sujaaju isan fa at wa yoodu sayqu fi sababati fat at màggat ba noppi delluwaat ci fanweeri at am juróom-ñeent fukki at delluwaat ci fanweeri at bëriwul de waaye rob néew bi ci ëllëg mu ne damaa yàq am loo fàttewul moom lay jël si bëriwul de te wa anna laa naka borom ba tabaaraka taala yab'asu dana dekkal man fil qubuuri waaw bu dee ñenn ñi man fil qubuuri ñi naan man yamuut waaye bu ne man fil qubuuri ko dee ñu suul la ko ne fa nga mujj mooy sa bàmmeel fu mujj rek fa nga mujj rek mooy sa bàmmeel kon li Alxuraan wax mooy li wér de ak boo jëyee nag moom moom wax ci ñi bëgg a wax muy nag wabinees waaye nag am na ci nit ñi man yu jaay julu xam ma ngay daggee fii laay ci sunu borom dafay def te xamul dara de ni këtër la xamul dara de ak boo jëyee wala xaw nañ xamul njub li li mu bëgg sax xamul na mu koy bëgg wérante ne ka ne ci moom lu waaye waxam weddi te du ko teg dara wala kitaabun jàngteel bu biir bu niiru bu leer nañ xamul ci alquran dara de te alquran rek mooy kitaabun bu niiru waaw waaw saani xej fihi saani xej fihi ma ngay njettaloo sa bon nag defe ni def na farata wañ tànkam ko waaw waaw ngir réykat nag ak wacc bi gëm yàlla waaw waaw da yoroon càmmoñ lépp ma koy def nag li ñu dee ngir na sànq an si bi di daay walu ne na ci yoonu yàlla ñu génn ci ñu ci diine ñu xeeb ko ba génn waaye nag moom moomee nga xam ne mooy abojeel ak li mel ni moom kat loxoo ñeel ko moom abojeel ak i àdduna fi dundee fii fii ci dundu àdduna xis ñun gàcce gu mat sëkk nañ ko ree te ki ko ree gis nga euh, danga de euh, ji ko rey euh, Abdullah ibn Mas'ud moo ko rey te moom am ndongo jara la woon nit la woon tuuti koo xam ne kenn mënu ko xool réewoo moo doon yor saagu yonente bi ak dàll yi ak toobarte kenn mënu ko xool réewoo moo ko rey ndax moom it ak boo jëyee da koo da koo jàppoon ni ko yow man ni ma toll bu may rey nit laay rey te yow matoo nit te su ma la bàyyee nga dem ku ku ni Abu Jahl jàppoon du ko gëm kon nag dama lay jox mandat daal di jox ndox bi sa nopp bi rek lay dagal ngir ñu xamé ni ci dag nopp bu la bëggoon rek rek la mu ñu jël jooy joy joy metti ni nga wax abu jëm na ko yow sa nopp la dag yow abu rosam ngay dagg ñu wax di de yow sa nopp la la la la njóob way yow aw rosam ngay dag way on lay def biñ koy rey hoor eh, eh, bu ko rey eh, masalan dañ ko mu abou abdoulaye dox dox aussi ni ko li la sama sang bo daal di yéeg ferakolage ci dënd bi mënu koo tëgg sax di këtt ci dama ko neex ba mu ko tëj mu waral bopp di ko ci sang bi sallallahu alayhi ni ko yaa waxoon lii kon màgg màggalu amul solo de màgg màggalu ndax màgg ñàkk màgg rek la màgg màgg màggalu kon nag ko yàlla màggal waaye nit mënta màggal boobu ndax mënta ñàkk màggal keneen xoolal Abu Jahl ni mu toll boo demoon ak boo ak boo Abdullah ibn Mas'ud mu ma Badar lañ ko rey de Badar borom bi ne woon na suñu ko xoo màngal naa ko nag yow ak ëllëg yow ak xiyam asaabal xariq yi buggoon ko wax comme que li yéefari dañ leen di ba ñu dugal këm ñu dugal leen sawar bët bi day lakk-lakk boppam. nopp bi lakk-lakk boppam bopp bi lakk-lakk boppam tuñ yëg làmmiñ yu loxo yëg lépp cër bu ne day takk-takk boppam boo xam ne diñ yëg ñu boole nag yëg yow yooyu nag nga dajale mu ngi mel ni boo duggee àjjana di naan eh, booy duggee eh, dégg de eh, li nga li ngay li ngay naan benn kaas ngay teg waaye loo bëgg ci melo moo cay ne soo bëggee benn càkkuta mu ñëw boo bëggee ñaar mu ñëw boo bëggee junni càkku mu ñëw te boo ko lekkee junni yëpp di ko yëkkal benn ba mu àgg sawaree noonu la mel ci bu day lekk ba nga dee moom rek ay nga doon lu yëg xeeti lekk yëpp benn bu dee dëggee ak la ko yàlla ci yàlla mosal mu ni saalika loolu nag am nañu musiba yooyu nag bi ma xaddama te ne wéy loolu na ko yàlla ak sa loxo de Abu Jahal ñu xam ne seet ya ya daaka say loxo ya day gase ñaari loxo te na la wóor ni ma ànd naa naka borom bi kat lay sa bi salaaman du borom tooj de bay tey du du tokkaas du nee na danoo ko leen ëbbee di jaamu ñu de mu ne wamee na naa si ci xeeti nit ñi nag ndax nit ñi ni ne seen de man la ma nga ala ci islam nangul nga tànn la nga bëgg a yem ci déedéet sa xel may nga ci kon islam du am du am njëriñ ndax ko ne islam li ñu rëdd ni nii lañ koy def moom dañ koy nangoo def li ñu rëdd dañ koy dañ koy nangoo waaye loo tëri Sénégal mën na laa jégal waaye tànn def ma at moom daal yëgul dara yëgul kenn am na leen war a am ko am baax na ko amul baax na waaye waaye dèjà boo ko ko wér dina fitna tun fitna baatu fitna ismu jaam la maanaam nattoo nga ci ñàkk nga ci wérdee nga ci ci jaaxle nga ci bu boobaa doon ci guna allahu ci defar dara koo xoolee gis na dara muy tàkk koo mën nga ne mën nga ne loola jot waaw mën nga ne loola jot xam ne kii nii xalkat lu mel moom daal bëggul kooku mooy dundu naa fekk ak baadiyee arab yi dund ci baadiyee bi nga xam ni seen dara ñëwul lu seen xel du seen dara am nañu doole rek moo leen liggéey di waaye amuñu xel ci lenn bu seen yaram ñu fëtal waaye seen loolu du dund na mu war dunde du ñu am leer seen xel du waaw waaw man ñoom xàq bi da doon seen fan sax ci biir mu ni loolu lay wax de boo sabaan ba ñëwee nag kenn du dégg ay adduna tudd la rek dundin woowu nag moom la alxuraan yi du dundin dundi bi gën mooy da yàlla waaw waaw salaasama nee na maa min muminin imaana man lam yu'ud balaa ni'matan wa raxaa musibatan li anna ni'matan la yaddu ila al balaa wa anna balaa la yaddu ila al raxaa nee na julli dëgg dëgg dëgg bu xiifee day kontaan xam ni rek dañuy ñëw jeex na ndax xiif la ba noppi kon jël bu xiif di ko weddi la waaw looy saari tëddi li nga def bañ dal na la jàppal ni rek xéewal boo reggee it bul bàkku kat rek nga ko noppi xiif rek day ñëw noonu la julli di waaye boobu di fata fata boo ñàkkee ni ku muñ baaxul de ndax la muy wane mooy gëmoo yàlla boo gëmul yàlla ni yàlla dafa lay am moo tax mu ne xasee adduna perte na adduna ne yàq yàq na adduna wala ak ëllëg yomal xeer na perte na di ndax du woo fekk dara waaw saalika nag ah waaw dem yoonu xeyam fekk fa perte woo moom kookee day alxosraan mooy foofee day alxosraan fa la perte nga ne ay million bu mat sëkk ndax àdduna mën ngaa ñàkk bala ngaa dee nga am mën ngaa wér di bala ngaa dee nga wér waaye yoonu xeyam moom boo perte jeex na yooyu doxam ma ngay woon ak ñun doolu lay ba fa yàlla de waaw mooy lu dul yàlla lu dul yàlla nag nit a koy def te nit mënta def lu sotti bu dee aw da ne yàlla waxoo dëgg bu dee sawara nga ne yàlla waxoo dëgg bu dee suuf lu man bu dee nit nga ne yàlla waxoo dëgg waaye yaa ngi koy ñàkk jaamu loolu jaamu ko jëriñ leneen nag fim ko ci wa ak loo xam ne laa yéen boobu ko jëriñ de ca jaamu ko moy lu dul yalla salika nak wote ko mu wote jàmm ko ko nag ho mom dalal moy ak réer ba yidu bu mat de ba yidu ko sori ya do ho ma ngay wo laman laman laman la nga e eh, ne darru ho lorom ga ci bu koy jàmm ak la mu sus rëkk min na fii ci njëriñam néem jëriñ na ko ci njottam wa illaa bi saboon nag al mawla mingoo ba mu mingoo jaamu lu amul njëriñ lu amul njëriñ koo jaamu musiba rek nga koy am ah wala tabar nag al asiru mujj la xam nga ne day ku ne di dund di jaamu yàlla ba di kën ak yow ak yàlla fekk fa sawar xam nga sab daal du neex de mu ne la sa bon na te du baax ñaaw na te lu rafet la bi sa mawlaa li mu àndal moom yóbbu ko sa war a day ñaaw na walla bi sa asiru ñaaw na ak mujj de loolu dalul ak jullit de ak jullit moom ah. li faris ba waxoon rek faris ba wax laa rabat batarin bi wadaa seen maa rabat ak saati bàkk laay sabat giñ naa ci yàlla ni àndandoo bu bon dégg nga de baaxul te baax day ànd ah, yow ba nga di sëq sawara ñu ne ko am ah, mu ne waaw mu ne yaarati kookoo kiratan yaa bi nay àndandoo bu baax nag day ànd yow ba nga di sëq àjjana mu ne kookoo baax ki nga xam ne bu ngeen àndee bis bu ne sa sa tey sa sa sa tey muy gën sa démb bu ëllëgee sa démb muy gën sa tey kooko jara àndal de mu ngoog mu ne inna laa naka borom bi tabaraka wa taala ngay dugal na si ne mbool ñu xëy amuna dugg na seen gëm wa amiloo te ñu taxaw saa leen joxal farata sunna waaw ndax aada la ci alxuraan bu dalee ci gaa yi bon yi ba tool yoo xam ne mu ngay gox gox yi meew maag la ci ajoog lépp ah ñu ne waaw loolu lu ma rek ma ne laa nag ko borom li lu mu namm ak aw rek loolu yàlla na mu am ne day daal di am ngir tëral leen te topp ga ñu topp ci àdduna waaw ah, fi nga toog yoo xam ci ëtt bi dégg nga de eh, maroo lay doon boo xamante ni eh, meew maa ngi suuf ak lépp

du ko digli fi dunya ci aduna wala akala yawma qiyam ak koko fa yam dun na tal bi sabab bi ci goom ila sabab ci asaman yeg dem ba ag ni sunu borom ko def te batay sama li nga xam na dog na ah wa na na wax na wax ah wa min ag ci suuf jëqi suuf laxasu ba ca tata sare muy sunu borom lu yag yag bu teral sare asaman la jogi ni fa yentu na seet nag am kan xal xal ndax jëmam ba asamaan borom fa yéesi mi ne dana dem kay doo ko teg la nekk déedéet ñu ne nag euh, kay doo ko teg ma daal waaw waaw mbay boo nga xam ci tëdd mu ne maa yaqi suhoo la ko nakkari déedéet waaw waaw xam ni si benn kay doo maa yaqi suhoo waaw kon bu boobaa jawaab jàng ekkanam fal yaxtanix waaw fal yaxtanix waaw mooy na laxasoo bu mu ngi wàkkoo ko mu njëkk ko mu wékkoo wékku ba dee mel ni gàtt bu laxasoo rek ba dee boo demee ci ilmu yëpp noonu la ko waxee ahasiduhum inaysaka an kanu jàngeen ko yéen ñëpp ahasiduhum xaysan boo demee ca sara mut xaysan la wax yow mi bañ sara sara ba bott la tura mut xaysan dee dem sawara waaw mut yi mu ngi ca ci sara bind nañ ko ci woyu waaye xaysan jàng ca euh, euh, biir mut xaysan mu ni ki bañ sallallahu alayhi wa ni yàlla du ko teral adduna ak laaxira ndax sawara lay dëkk loolu mooy maanaam aaya ndax jëf jooju jox dana ko giifal warul de wañ fa yaxsane yamootu xaysan moo tax su doon xul dee leen mootoo dee leen waaw waaw mootoo dee leen dee leen bi xëy si koom ci seen mer moomu tàkk moo tax tafsir bi ni yow mi bëgg a fexe yàlla dana yonentam bi àdduna ak laaxira wutal say pexe yoo yoo mën a am yéeg ba asamaan wax moom wut say pexe yoo gase suuf ba tëdd sa rek a moom soo ne dana am déroul mu ne mut xëy nii nag nga xam ne laa wàccee nag alxuraan ji nag nii ma ko wàccee moom alxuraan ji nag ah anzalnaahum laa ko wàccee ci yow muy des ba ilaa yawmi diin téere yu jëkk maa leen wàccee sa téere bi jeexal ko sa téere bi jeexal na ko te benn téere bi ko jeexal alquran abadan abadan la jot mu nekk ayaati di kiimaan yoo xam ne bayinaat yi ñu cënn la alxuraan kenn mënu koo suppi kenn mënu koo yokk kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo yàq kenn mënta tey ñu gëm ko amul kenn koo xam am nga ci yooyu pexe te wa anna laa naka borom bi tabaaraka wa ta'aala mooy jubal man yees man yuridu ku mu ak jubam dalay dugal ci alxuraan bëgg loolu ko gëm loolu doo nekk noonu alxuraan waaye koo dégg ni noonu alxuraan la day bay boo rek nga yërëm ko ba boo ko mënee ñaan nga ñaanal ko yàlla jëlee ko ci ndax kenn du ko kenn du ko gannaawal am ndam mu ne ne la see naka mbool ñoo ne amoon ah dëggu seen gëm ba tey ma nga ca ñu gëm yàlla de wala si ne ak mbool ñoo ne haadoo dégg de eh, dellu nañu waaw waaw mooy yëxoot rek sax nañ ca wasaabee na ak kuréel kuréel la boo xam ne ay gurbat nañ leen tuddee taa ibatun waase yi dañoo bari yoon am na nee nañu ba tey nasaraan yi dañoo am ay waaso yoo xam ne ñii ay golbat lañu xam nga waaso ñuy bari dañoo weex rek ñii dañoo xonq ñii dañoo tikk waaye nag waaso woo dem ci ñooñu danga ca fekk weex fekk ci ku tikk fekk ci xaw mu ne diine yi nag ñi ko diine woo bañ di leen ñépp nag waidun li rahmaani wa asa boo fi mooy ñi diine yàlla gëm yàlla wéetal yàlla topp ko ñépp àjjana la jëm dañuy ànd lu dugg àjjana sax ci wa xamsatun li sayaatini nee na ñi nga xamante ni dañoo lënkoo seytaane ak àndandoom ci sawar lañ dugg ci dañ cey dëkk mooy poñ yi desoon dañ koo boole booy leen ko say daay comme ñoo jëm ñu jëm rek ñu ànd ñu ni majjoos nag waaso la woo xamante ne dañuy jàmm sawar ñu ni jant lañu jàmm ah, waaw waaye lu ci mën a xew la nii rekk la ñu ni majjoos nag seen cosaan mooy nit ñoo waaso woo xam ni sobe rek lañ daa jëfandikoo ba mu jural leen tur woowu léegi nag mooy joos dañ ni ku amul téere rek képp ku amul téere rek ma joos la soo rendee duñ ko lekk lu mu mën a doon deesu ko lekk waaye nag soo tuubee génn nga ca ndax bokkee ci alxuraan alxuraan benn waaso moomu ku tuub waaw kër la koo xamante ne ku ci dëkk rek bokk nga ak waaso boo man a doon rek boo duggee ci alxuraan bokk ci téere bi soo rendee des na ko jëfandikoo mu ne Eh, mbir yàlla noonu de wa nasaara wal majjoos ya wala si ne ak ñi nga asrakoo ñu ngay bokkaale nag ba tey ci xeetu majjoos ak rek amuñu téere mu ne ñoom ñépp nag alxuraan dane mooy ne laa naka borom bi tabaaraka wa taala yëpp selu dana tekkale bay doon seen diggante yomal xe ëllëg yomal xe te kat ñaari mbir rekk la ñi ñi dëgg ñi dëggu dem sa àjjana ñi wet dem sa moo tax benn kuréel bi rekk bi gëm nañ yóbbu ak bi dañu ne waaw mooy xam sotu boobu mu mel ni nag dañ ci war am dégg rek mu ne na laa naka borom nag bul bul xalaat kat ah ala lu mu mën a lu mu mën a doon ak shahidun mooy seede sax ki li ci àdduna jóg seere si yàlla doy na ndax moom la dara umpul nit sax mën naa seere waaye nag seere su mat sëkk-sëkk nit ndax nit bu seeree leneen nit am na lu ko ump ci boppam mu ne anam dara xamal ni daal ana laa naka borom bi bi lu ma ngay wàcc njuboo ca moom man ñëpp ñoo xam ne sama war ñu ngi ci asamaan ba man ak ñëpp ñoo xam ne fii arda ñu ngi suuf ñëpp ñooy wàccal yàlla wa samsa jant ba day wacc wal khabara wero day wacc wal joom bi lu day wacc wal di yoddu yep ngi tak wa wa shajaru garab yep na garab bu wedd yalla amul du tuddu du yalla amul wa dawabu ak daba yep ñi ngi toor ci lu borom tabaraka taala wa ndax ne nañu asaman amul bidi bu ci ne wala jant wala wer lu dul dara rot suñu ci kanam borom tabaraka taala moro walillahi yuminu man bi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa sirran bil qurbi wal ahsani kër gi bu xëyee jant bi jóg jiital ko mu suyootal yàlla bu jant bi dee so ginnaawal ko mu jullu soow mu siyaatal yàlla ak lépp nag moo tax ñu ki weddi yàlla dafa ñàkk fayda waaye mënta yóbbaale takkandeer bi koo gis mu weddi yàlla yéefar loo yéefare yéefar boo ne sab takkandeer bi dana fa bàyyi gëm yàlla moom waaw kon kon kon bu la yàlla bu la yàlla xëppalee ba nga xool da xam ne yow mii nekkoo ci dëkk waaw mu ne wa kasiirun am lu bari mu ne naa ci nit ñi te mooy gëm daal xam nga de bi mu ñëwee ba noppi asamaan ku wedd yàlla nekku ko du biddiw du leneen jant noonu garab yéeg jën yéeg mala yeeg bàyyi béy yépp ku wedd yàlla nekku ci garab gii waaye nag leneen fi leen jënd dañoo gëm leen la wedd maanaam moo kaseen lu bari min annaas ci nit ñi eh, te mooy ñi gëm yàlla waaw waaw ñoom dañ nañ tey boole torox lu ci sujjóot waaye wa kasirun ah sa war na alit al asam woon ndax dañoo mel dinañ mën a sujjóot jàngoon nañu man nañoo ba abaw abaw sujjóoda al moo tax dégg nga de moo tax ma fam toosu bu ñu waree départ ci fi nga xamante ni mooy aras ba ñëpp jaxasoo yow ma ñu daw na ila sujjóod ku dul dul ci àdduna doo mën a sujjóod am yéene sujjóod ak façon ndax foofu weddi weddi jeex na waaye la nekkoon yow jeexul mooy weddi gi ñu fi indaale jeexul seen seen ginnaaw day day day day kabañoo mel ni bay bu tal tàng duñu mën a sëgg kon ne imtaazoo ayyuhal mujrimuun mu ne na waman waman waman yuhini waman yuhini koo xamante ne dafa wàcce ci texee di allah borom bi tabaaraka wa taala famaa loolu de deñeel ko gën a min mukrimiin ci koo teral ku yàlla wàcce kenn du may suñu mission xam baax ma daan ko wax man ko yalla wacce duma ko yëkkati waaye ko yalla yëkkati duma ko wacce de ndax dama ci duma ci am ndam yalla ne non la ngay du noonu ah yow da nga da ngay son rek waaye li nga bëgg do am mu ni nag ah, ah. mu ni mi mu mi ne ñi inna la tabarak wa taala yafalu ma yasaa waaw waaw ci la foofu la mu ne inna laa yafalu maa yasaa Allaahu akbar loolu moo tax loo ragal yàlla dëgg ndax toobare yàlla néewul kenn dencaloon sama toobare de néewul kenn dencaloon sama toobare mu tey toobare boppam xaalis bi nga def ci sa poos yaa ko fi def ko bañ boo koy génnee amatul bañ boo koy joxe amatul bañ mu ne amsa ak ubayd ibnu aams xotbatu ak saybatu ibnu abi rabaata ak walid ibnu muqirata xam nga jullit dañoo jaar fi ñetti ñu bokk dëkk bi bokk bokk bi ñi gëm ñi weddi ak xamu xuloo rek ñaari ñu ñu jubóo lu leen boole da yor ñu ci la ay bi ñu bëgg a wàcc ñu ne ñu wàcc jullit yi ahlul kitaab ah non dañoo sànnante wala ay kàddu ah, ahlul kitaab ci ñoom ni amana bi nabiyyina Muhammad wa nabiyyihi mu wax ko ñu ni jox ko ahlul kitaab bi wa maa anzala Allaahu min kitaab bi nun kat nun bu bañ a amee loolu day ndax nun gëm nañu seen téere gëm nañu suñu téere wa antum da de taarifoona kitaabanaa wa nabiyanaa wa kabartum xasada yéen xam ngeen ni téere bi waaw ba tey lay amee wala yow ma xëy mu ngoog aaya boobu foofu la jëm mu ni haa haa saani ñaar ñii de xasmaani ñaari way ko loolu la ñu mu jullit bi ak yéefar ah, waaw ñu ni jullit bi ak yéefar bi ñu di ko tënk ci te juróom lañu waaye ñu di ko tënk ci kenn ñaar rek kenn mbooloo et eh, tasawoo ñu ngay werante bi rab bi seen borom rek ku ne noonu ci dëkk ku ne noonu ci hmm. ku ne noonu ci dëkk dëkk waaye fa la si na mboolem ñoo xam ne kafaroo day ñoom ne leen war a koo def doge na loolu yële si yaakul yële yoo xam ne biñ naa leen moom sawara ku ci ne mën a nekk de ku nekk yëfar yi moom seen yëre sawara noppal te daañ ko sañse mbaxana maag mbub maag turki baag néeg baag lal baag laltaay jaag lekk gaag naan gaag lépp sawara lay doon cal ga sawara tëdd ga sawara lekk ga sawara waaw te nag yu sabu déem na ko sotti min bokkul ci seen bopp boppi xamim bi amimu ndox mu tàng xamim mooy ndox moo xam ne xamoon nañ leen xamal ci ndox mu tàng boo seddalee kaas bu tàng jox ko ngelaw li loolu nag loo gën a dindi lu mu gën a tàng sa walaay boo boo ci duggee loo gën a loo gën a dund mu gën a lakk loo ko gën a yàgg mu gën a tàng mu ne yusharu dana ruuyal dana ruuyal kuy ca deme ne jëfandiku ko nag maa fi ko toll lépp la seen biir waaw te biir daa bari bagage de dana dukkat li bopp ci suuf wal julóo da dana lakk deree ba moo koom muy kon yëmu ci xob kat wala ñenn leen ca biir loolu yi maqaam yoo ay bande yoo xam ne e min hadidin wayda ne nit tib mu noonu benn si waat mu ne tipp mu noonu amee te kat ku la ma araado bépp boo xamante ne bëgg nañu génn rek am yax lu ñoo ak génn seen min haa ci musiba moom buy min xam ne ngir ñàqale ak tidaage uhiidoo naqaat leen fii haa ci biir waaw boo boo ne mën rek di xalaat noonu noonu noonu rëcc rek ñu ngi tëll nga delluwaat dañu kat malaayikatul xilaasun sidaatun laa yasallam amar way boroon maa yombal ba tey nag wa sooxoo ña nga naan leen nag ànd ak bolde ya sooxoo mang leen te ñeme ko xasaabal xaleex wala ragal bi moo yow ñeme leen tey lakk rek fa ni kalam lakk kalam boppee daqabal moo tax yéefal baaxul de wedd yàlla baaxul de xas jullit yi baaxul ah ñu ni yéen julli nag yéen ñi wóoloon yàlla te muñ coono jàmm yàlla ca àdduna ca sedd ba tàngoor ba ak neex bi ak naqare ga ne leen wër ne inna laa naka borom bi tabaraka wa taala yu dugalu mooy dugal ak ci nam ko soobe li si ne moo ñu xay aamanu dëggulu si du ko moo am ne tañu taxoon sa leen ñoo xam dana sunna ana ko la jëm jannaati waxoon na ko léegi waxaat ko mi ngi koy waxaat waaw jannaati tool yoo xamante ne ay kër la waxoon mooy boo demee ca tool loolu nga fay fekk boo demee ci kër ga loolu nga fekk te nit yi ma ah, nga gis tool boo xam ne borom tool boo xam ne day wane kii moom am na barke waaye duñ koy lekk tool boo xam ne lépp nga ci lépp nga ci lépp liy moom daal maa nga ne kàpp ab biir du génn te muy ab tool doomu bokkul sa kër bokkul la nga denc waaw. jannatu boo déggee ñu ñu jël àjjana tuddee ko jannatu eh, àjjana noonu la mel tool yi rafet yi ci àdduna àjjana leen misaal mu ñoon wax na ñu di ko fataa jannatu jannatu am am na jinnatu am na bu nee jinnatu nag mooy li ngay dépense booy xeex pakk bu nee junnatu moo bu nee eh, jinnatu buñ ko kaskaa ak dof waaw waaw ku ku ñi ku ku sa dëm dina jàpp bu dee jànnatu nag mooy xéewal gi waaw mu ne ñooñu nag ak seeni xéewal yoxal lool na ñu ngay takkaayoo fiiha xam ne e, côté ak siyaabuñ min naari côté loolu siyaabuñ min naari fii nag moom ni xawlal ma fi yàlla min asaawira te ay dawas ay tiqal ak ay làmp dawas mooy lu te ci tànk ak lu te ci loxo ñu di ko takk rek min saabin moom lu lulu lu lu wax ko lu lu ak lu lu lu xeeti wul si yëpp waaye saabu daa siñ ci واللباس سلط الفئات عدن حرير حرير la xariir la mooy wul suñu wulli ko wulli ni ñu wullee wëttéen di ko ràbb wul si nag daa am ci góor araam na ci góor fii ci àdduna ndax jaaru wul lam wul waaye nag montar moom dañ daan deful moom moom moom ayul ndax li ko tax a jóg Quattro che canta, lo che canta. Chain gap, narrow gap, lump gap, चकली थी दिगे में निप आरम बचवा वाय उदी दिगे मो टकाई तरा उच्ची मो गोजी तक पेड़ दिगे न्याय तरा जी पे दे दे तरा में चिनो दिव्य तरा मुने वो होटल टेक अपने लक्ष्य का दुनिया إلى تجي من جبل جاء شك من القول كأيوة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنني بقوة بني وخر كل قول يقوله المسلم يقول يقوله لأنه وحي من نابوته ندل إلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله من دون غير وخر من قول لا إلى إلا الله mu ne loolu ñu ngi di wax moo tax ñuy teg nañ leen ci ngeen ah, boo ñëwee cere ba ñaar loo mën a woon wax lu dul gën dëgg de alxuraan yu wér cëgg de wuxudoo ci àdduna ilaa tey bi ci gën daa set mu ne xool ci ay wax woowa laa ilaa illa laa ay suñu mag ni mu gën a rekk de ni mu gën a yéene ko ko dee moo tax xale ah ku weddi ku weddi wutul ku si wàññi la dal de boo ñu war a yàgg ci li gën nga xeer ko ba ñu njëkk lépp de wuute leneen ah yow nattu dara dal de ndax doo am leneen ndax dugg du ñaar ndëkk du ñaar mu ne woo doo teg nañ leen ila siraatil hamid ci yoon woo xamante ne ko ci jaar yàlla dara sant yàlla dara dinaa si rek bëgg yàlla sant la gëmal yàlla te sellal moo tax sang bi ni ku sol sol ak yére fii ci àdduna boo demee ak yéen doo ko sol ak yéen suñu dañ cee wóote mu ni su ko bàyyiwul su ko bàyyee nag mucc na su ko bàyyiwul nag du su ko bàyyee ne bu demee ak de de léegi nii ni waaye kay bu demee ak dina ko ñii doonte duggul ak de ndax génn wàllam ci àdduna ba noppi mu ngi mel ni naan sàngal rek ak xeetal mm-hmm. mu ne ila siraatil hamiid ci yoon bu muy amee ngërëmal boromam de inna lasiina naka mboole ne xam ne kafaroo dañu weddi yàlla ca sax yonent yi Yàlla Muusaa wa yasudduuna nañuy fekk nag ani sabiili ku dugg ci yoon bi waaw mboq du seen waaye nag soo xasee gëm lu ñu mën daay ko ne ngeen nga weddi lañ ma jékkal jàkk ja nga ne ak xaram ñu ñu war wàll tëj jàkk ji téye ko ne kenn du ci dugg li si jàkk ja nga jaal naa di ko seddale li naa si ci nit ñi shawaa'un añu yemoo la haaki ko añu dëkk ci dëkk makka madina baytul muqaddas wal baadi ak gan gi ñëw tey nit jàkka ji ñëpp la fa nekkal aakimu wal baadi aakim mooy ki dëkk ji dëkk bi baadi mooy ki gane si tey nit ñi boo omra ji nga da ngay nit ñi si nga da ngay nit ñi boo xasee ñëw jàkka ji moom ñëpp ci dañ ko def nga ñëw ne ko kàpp day wala bon de mu ne ma man ngi di ko waxee na man na fii ci moom bi leen haadi cictitil bisul cictoñ nak ah ba di ñewul ay galankor ba di ko ci wax ak bindi bi koo kay day na ko wóor ni borom beneen cheikh ko danaa danaa ko màggal min asabin ci ci bu dee seen mbiru taxoon na de ah mu ne wa is ba wax naa fàttali ko nag ba ma leeralee nag man yàlla tabaraka wa taala waajal naa leeral naa ubbi naa li Ibrahima ca Ibrahima ana ku leer ko mu ni ma kaanal bayti barab ba nga xam ne mooy barabu kaaba la xam nga mën naa li li dégg ngir mu taw ndax jë tuufaan amee daa tëjoon dafa ma ko commencé ko ba ba adduna bu peese tax mu jub jamono loolu du adduna gente waaw fondement boo desoon bu suñu borom na mee nag dundalaat ko la yabal Ibrahima Jibril ñëw faxas fàkk lépp boobu sax man mu tawoon xool waa di fum mu ne ko mu ngi ne wa ba wax naa fàttalikul ba ma wonee ma leeral ma jox li Ibrahima Ibrahima kaaral ba ci la ñëw fàtt wéetal ma jaamu waaw waxtaan ak na nga laabal ba sama néeg bii ci jaamu xelam li taa ay féer te ñuy siyaase de wal xaa ay miina ak ñi dëkk buñ ci wéetal ku dul yàlla buñ ci jaamu ku dul yàlla de war a koxe ak ñuy jullit si jóot di ñuy si jóot jullit bi sotti te rokkoog suñu doom de ñun ñëpp waaw kii lu ko mooy julli kii si jóot mooy julli nañ ko def de raxas lépp loo xamante ni amoon na bakana wa asina wooteel finnaasi ci wa aduna bin àjji ñu agsi waaw ñu agsi nit bi de ñu yëg ci jabale ak waaw ni ya ayuha nnaas inna rabbakum bana baytan wa awjaba alaykum alhajja ilayhi fa ajibu rabbakum والتبت وجهي يمينا وشمالا وشرخا وخربا وعجبا كل من كتب له ان يعجب من اسلاب الرجال والعاب الامهات woote boobu nag kenn kooku soo woon di doon càmmoñ ñëpp ñëpp àdduna bi dégg na ko ku dund dégg na ko ku dundoo woon dégg na ko ku nekk ci digal baayam dégg na ko ku war a yow dégg wuyu ku wuyu ñii ñi war a ñëw ñaari yoon wuyu nañu ñaari yoon ñi wuyu war a ñetti yoon ko dele nga war a wuyu wuyu nga ko tëddee ko ñëw bàkk moo tax ko ne yàlla noppi na mais da ko dégg de waaw nee na ñu njëkk a wuyu woote boobu nag muy yaman waaw mu ne nag ba àdduna tukki loolu dox na ku mu ak ku mu mën a doon nag bu agsee bu na Ibrahima alayhi salaam benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeent yoon juróomi yoon waaw xam nga kilifa boo xam wax na ma ci laa ma ñëw ne waxtaan naa moom mun ma aje naa ma ko ñeent yoon ak benn kon kooku mu yoon na ñeent yoon ak benn mu bokk soo ko defee yaa toppoo dañ la digal de allahumma labbayka allahumma labbayka loolu rek allahumma labbayka loolu la ñu waxoon allahumma labbayka ku aje rek su mu la fekkoon booy nàmp wax nga ko boo juddoogul wax nga ko boo demee seen loxo seen seen digul bay wax nga ko mu ne wa allah kulli daabir ña ngay ñëw de ña ngay ci bépp génneem boo xamante ni maxsool la xam nga génneem xaw a woon tuuti day aada ci moom ndax ñeme gi tool ak dañu du duggee rek nga teddaange waaye nag boobu am na ñoo xam ne mbaam la ñu war di ñëw ñu ko dëkk yaa tey na ñu ngi leen digal de min kulli fajjin ñu ngi ci bépp mbedd amii xi xóot mooy mooy mooy yoon mooy yoon bu sore yoon bu sore rek doonte doon na noonu xóot na bu soree sori bi bu sori mooy xóot bi waaw bu amee nga war nga ba ak kaamil taxul ñuy wax ñu ko di ko jëndee ak yéen mooy yónnu ko rek xool rek am na am na ñoo xam ne dañuy takk seen ak si màkka am na ñoo xam ne am yoon la ñu jël am na ñoo xam ne oto la ñu jël ñu jël seen i daa ba xool yoon mu teg loolu lépp ñu ngi koy def yéen teewe nag mën naa feex ñenn ñi ak loolu ñëpp ci àdduna ak commerce bi rek euh, liggéenti yi waaw dem ak yi wàllu say bagaas jaay ko dimbali ko jënd bagaas ñëw joxe seen te jaay dimbali ko bu dee ko loolu te ñu tudd des ma ne tudd borom bi dafa ay yaa bi ci fan yee ma ma aloo ma ñu xam la moo fukk fan si di ñetti ak bisu arafa ak bisu nax bi ba ca ayaamu tasriix ayaamu tasriix ci ne mujje mooy boo jógee boo jógee diggante tawaaful xuddu eh, eh, tawaaful diggante eh, ifaada mooy bisu tabaski bi ba bëggee umra booy noppi lépp ci ayaamu tasriix la waaye nag wuute nañ ci ay wax ñii ni fii la yem ñii ni fii la yem waaye lépp daal li ca la allah maa razaqakum te la nga wërsëgal ne la ko min bahiimatil an'aam ci jurub kër muy gileem nag xar bëy ca bisu dee ba moo xam da nga xiraam wala da nga tabato mooy nga boole ay omra di nga dem di nga dem gàtt tamatu mooy nga dem màkk aj ba noppi toog ba eh, umra ba noppi toog ba indi nga aj foo mooy barkeeloo daaw moom ndax la waaye su fekkee da ngay ab sénégalais nga dem umra ji ba noppi ci kóor bi nga dem ñëw moo koy wut waaye soo dëkkee ba wala nga dëkk Sénégal dem Màkka umra ba noppi toog ba ay yi nga aj doo la ñibbi si taw ba ñaar moo xam gàtt ndax teraanga ñu toll noonu daal kenn du ko def te tegoo ci loxo nit ñi daal mu ni kuloo xeew leen min xaa waaw waaw neem bu dagal na nag ndax ko sa yóbbu yow loolu di nekk masyarakat wa ajo wa adhimu dengan dengan jox dan al baisa aji aji aji aji sonu ja al fakira cay ñak jirim bo xamanteni miskin muslim bo xamanteni lot na lol mu saya ni sew dajale sa ba ba jëdul kooku kau ko jëkk moom waaye muntaka wal xaaliya ñoo ñoo ci gën a yey waaye lu dee ñu nekk lu ñu am am am sañ ñoo lekk ci lekk ci indi yi moo tax léegi koy def gis na ko léegi soo demee màkk bureau yaa ngi ràgg xam moo bëgg njëkk koy joxe ak la koy eh, rend rees ko ñu rend ko mooy ak mooy yàpp yi seen ci am na xeet nañ ci ndax foofu la ma ne kenn mënu ci dara kon buñ ci mënee jox ñeneen nañ leen jox yeneen misli yi wante ñëw yi mooy yi ñu séddale jàmbaar dëgg la ñu dee loolu far far na ko mën sëkk de euh, suba nga yàlla doo toog nañ fay ne tafa saxum seen jaamu yeneen la toon de waaw ndax yoonu gudd weeg tool bi yëpp retraité yi am dañ koy defaatal woon yow foo dañu matal nag nu sooru seen seede ci addiya ak tabaski waaw ràng ràng sa giléem yóbbu ràng sa gàtt yóbbu dem am xaalis jënd nangam nga yéene ko topp il faut nga àggale ba nga ko tuddagul waaye boo ko nisee ba tudd ko sa dàgg bu dee fukki giléem war na la bu dee fukki nag war na la bu dee fukki xaar war na la bu loolu amul nag loo coow war a def loolu rek sa man waaye boo xasee tudd rek jeex yeew nga sa bopp mu ne woon yee tawoo foofu nañu wër de waaw waaw néeg ba mooy jabar ko jabar daal bu leen tëralee nit ñi ba daal bi dara loolu la xamee dafa ne kii doom bàyyi saa la déedéet doom la amoon ma waaye du doom doom nga tam vraiment ne jarbaatu maam ñàkkul waaw te sëñ Moussa li gën a yéeme ci moom ni mu amee xam-xam ni la gën a taraxa bi ni mu amee xam-xam ni la gën a taraxa bi mbooleem ba ngay jàng ci moom ñëpp du doom ñëpp du murit du tijaan du xaalis du kenn kenn ku ne dew ko sa xol dew boo xam ne amul sa gisàkk mu ne ثم إنها إلى البيت الحديث loolu dina mën ne daal fa na fu mu dale fii lay lépp ku ko daal moom ko waree nañu boo ko dóoree benn dee am nga fukki yiw Um, um. moom moom moom dong de moom nga seen tegolu màgg mu ne waaw ah loolu loolu lu ko war a mën yes kuru ngeen da ngeen tudd Ismaïla tudd yàlla yëkkati ko ca kaw waaw waaw allahumma labbayka allahumma labbayka allahumma nasahum te la nasahum allah maanaam sax moom teel a mayoo sa gëm ne ko wala min bëgg métti allah mi mooy jur gi ngeen jaamu ci yàlla xéewlu ci te ngeen xam ne ba bii daa ko seen yàlla kat dinaa moom rek mooy yàlla waa bi du jenn de waaw waaw kon rek as la moom yor leen ci moom de ndax moo leen antal ñoo jox jàll. mu ne sang bi wa basari bi nga almuqbitiina way wàcc ña almuqbitiina way wàcc ña almuqbitu dara jala mooy ba na day nga wàcc nga nangoo wàcc kooku mooy muqbitu waxuñu nag am daraja toog ca kaw waxuñu ñàkk daraja di ko yóotu am ba ñëpp xam ne am nga nga wàcc nag kooku mooy almoxbitu ñu di ko indee tëj bu gudd lool te soo demee ci kaw bënn ba ci suuf waaw ñooñu nag mag ma borom bi ne dëggal leen waaw waaw ñu ne waaye ñooñu ña ne mu ni décidé mooy ñi nga xam ne nii saa su kera jamono boo xam ne ñu ngi teel nag allah suñu borom bi boo jëlee ci kër gi pour loolu si ko kon ñu ne ñu ngi gën a génn ci ñoom. benn ngoog ndax saaba yi ak yeneen tamit léeg-léeg bépp jàkkaarloo ak ñoom ko wax kañ noonu la de loolu mooy retil ko rattratil ak ko ak li mu boole daa bari mën ngaa jàng ci sa làmmiñ te sa bët du sàmmonte mooy moo ko di di di rati ko mën ngaa jiital sa bët sa làmmiñ xel taatal lépp xalam ñëw na mooy leer gi ak àtte yi gi ñëw na mooy làmmiñ tudd na ko bët bi ak xam ñëw na ndax gis na ko ne ko war ne ñëw loo làmmiñ loolu lépp da cee nag ah, ah, ak ñi nga xam ne dañoo muñ alaa maa asaabahum la leen jot ay nattu de ñett ñaare ñaareelu muqmitu benn ak darajaam yàlla day leen dëggal saabiriin yàlla di leen muyal ndax day leen dëggal ndax ay muñkat ndax wamaa sabruka illaa billaah waaye muñkat bokkul ak noonu lañ koy defee ñax ba doog nga muñ boobu loolu mu yëtt amatul muñ bi ndax liñ liñ la bañaloon def ko ko doog mun nag ah, waaw wal muqimin salati taggal ñi taxawal bi mi de ci waxtu ñetteel bango ñepp yalla leen gërëm wa mi wala sallam kan la wala wa taggal ñi ko na nga jox ak tak ñoo tak baax na de fu ñu roté gaay baax yi tu ñu wala ci tak baax na de ak di génne asaka ak di yërëme ndax boo sarxee sarax la boo dimbalee sa mbokk taxawaay sarax la boo ganalee sa xel taxawaay sarax la ndax yëpp foo ci fay sarax yi dañ koy fay mu ne woon pour ni gileem ya nag jaal naa haa mujjal naa ko nag lakum ñe leen min saa ene bokk ci màndarga yi fay yël diine de te ah yii mu bari de ah ratt meew mi lekk yàpp wi dénd der bi def ci yeneen ak yeneen ak yeneen ah, waaw loolu lépp jàlloon na nag waxoon na ay mbiram mu ne fas boroo da ngeen doon doon def ma ne leen di tur borom bi àlla ya xaa ca ba ngeen di ren di ah, ba ngeen di wóor ak fu ngeen doon dugg ci dugg waaye màgg yi sawaafun ak yi la ngeen taxaw ci ñetti barab yi waaw waaw yéen a nga ca Arafa wala yéen a nga Musdalifa wala yéen a nga na baa di tegaloo tegoo xam isaa wa jabar boo xamante ni ñu te dëgër jublu mu xaar wetam ko mooy eh, suba tamit waaw waaw ngeen xam rek mu moom addiya yi sotti nañ ko mën nañ cee lekk waxtu lekk yu ñëw na waaye addiya wala nga ak loj jote daal dara de mu ne fa kullu xiwlin minha bu leen soobee waati woote ngeen di leneen ne añi doyu jëkk mu ngi doon ñëw la waaw wal muxtar maanaam xaal yi mooy boo xamante ni boobu dugal amul àq am na lu jàpp waaye du tege mu ngi tabaski da nga gis ko tëbal waaye du tege jox ko teraanga ci tabaski sa côté ndax jekkal waaye doo nekk tabaski rek du ma ko déedéet nit it di ngeen dem màkk wala feneen nga teral ko te waaye li nga teral sax wala lu bokkul waaye da boo teral rek ak nag na cee raw wala moo tax na mooy nga xam ne yow doo mu lay nekk yorul dara waaw yow doo mu lay nekk war a war a nekk année mi ngi daara wax na waxee loo xam ne daal war na ko jël daanaka laaj ñu directement waaye ni mu waxee mën nga ci soo ko joxee mu jël te bëgg na la jox ñetti anam yooyu mooy waxee te lu tënne sañ ko kasaalika naka nii nga xamante ni moom la borom tàggate ak ak la te aju saxar naa lanu tàggale saxar naa haa lanu ko tàggate làkkoom ne leen ni ñu tàggate giléem bi ak nag ba ba nga man koo nag ak xar meeg bëy bi noonu lañ ko tàggale nga man koo addiyaal man koo feye loo war a fey waaw waaw lax làkkoom ndaxte yéen tas ko loolu ngeen man seen tedd ci borom bi وأنا وأن يدخل لني على بدل لا أمر بلهوبها يقول وهو خلي بيجي تكتي أبي يجي ولا دماء بجالة الدرجة فخذوا من دجتو لسوتكو ولكن وين ينال درجة وتقوى الرجل waaw daa mel suñu li mu soxla ci yéen mooy ngeen feeñee yàlla li nga nu sant nangu nan ko waaw waaw suñu borom man doy lu damay joxe waaye ana ko may jox ki may jox xanaa du ma ko jox moo dama ko delloo mais da ko génn déedéet man tey li may jox mooy ak nangu ak sell ñu ne ñi nga xam ne ñooy suba te bokk ci mooy ñi yor melaw ku woomal te yoruñu dara mooy ëll suba juróomi teew lañ yoo xamante ni soxlawuñu añ soxlawuñu reer soxlawuñu dëkk ci jàkk ji nañ bu ñu koy ndigal la ñu dëkk lu ñuy defe rek lu ñuy defe loolu ñoom it am nañu dignité ak col ak melaw woo xam ne soo leen gisee te xamul danga naan ñii ci lisaasi li bokk te amuñu añ amuñu reer amuñu soxlawuñ ko xam ne ñu waree añ daañu añ bu ñu waree reer daañu nit ñi di gor yoo xam ne ñoom it jàmbaar lañu am nañu mànk seen bopp ay du witt nan àgg waaw bu ëllëgee mu ñu mu ne ñooy ñuy àllu suufa ba tey dëkk boo dem suufaa nga fa koo xamante ni gor soo xam nga ni kii day dub laajkat waaye boo ko joxee yàlla gërëm ko ñu nga am xel moo leen di mën a joxe dafa baax nag waaye bu ab tab bu càggee day nekk ba ñu laaj ko rek tab xelam da koy may ni kii kat ko yàlla yàlla gërëm nga jox ko waaye doo nekk mu ne ah waxuma dara waxuma dara boobu dul bu ko waxee dara du sotti de mu ngoog moo tax ma wàllu muxtar na ak xaani u ak lu dox seen doxuwaay loolu la imaamu Saafi wax nee na amit tumataami fa iretu nafsi fa inna nafsa ma tami at taxoon imaamu Saafi moo ko wax nee na man rey naa samay xel téef noptu ku jël bëgg-bëgg teg sa kanam mu jël sa sago li nga bëgg yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam xub ko say yar ñi muñe summ loo bëgg te bëggal doo ko faaw nga bumbu te faaw nga dox te faaw nga tax soo jëlee adduna muy sa lépp adduna jël sa xel ak sa sago te du la ko delloo moo tax imaamu saafi nee na man day samay xeewi te yëpp rey naa ko noppal sama bopp ñu ne ko dox mu ne bakkan li feet yaa ngi ko dundal ci xeewi teew rek mu mu mu teg la ci waaw mu tegle ci doyee waaw am na ci am na ci ñu ni ko loolu noo def na mu ne wa aayaytul dundal naa ko doylu naa ko koo gi def ni ma ëpp na jëpp ñu ni ko waaw lu fa fii iya iya ay di ma suum nee na ci dundal ko mu seen sax der dañ ku mu war a doo ma yab min eh, ko waawi bonno mo isa kama on وأعيت إذا تبع يحل بقلب شخص علت معانة وعلاوة نانا سفكي دغا جيل خيميم تو دوغال كو سا خول فوتو لو تو دوي دغا دالاي سول بو دوي دي دوغال دي نيكو دوي دي تي سوبا دافي wajib terbayar itu kuyu. Imam saya mau tidak gelar dek, belum mah, tidak gelar dek. Muni, pada kali yang nalar tak mampu kok, kasalika nak nol mula kon lagi nak sakarna, sakarna, sakarna halau kok. mu ne sakaraha mokkal na ko lakum ñee leen li tukabbiroo ngeen ngeen ma nekkati laa turu bi allah ma arab ca ñam leen jubale nag ci yoon jaamu ngeen jaar ci ngeen sant ko yàlla sant yàlla seen jëm mooy jaamu sant yàlla seen alal mooy joxe ko sant yàlla seen loxo mooy yëkkati baat ba ca kaw yoo jox jàll na mu ne wa basiri bëggalal ba tey mu wonca mox bëcc ak ñu dem rek ñoo ba ci ak tax muy na nga bëggal al musina way rafetal ne de gëm te rafetal ko ne leen wóor ne inna laa naka borom bi kat ah ah yu daal fi mu ngay jëñ anil la si la ci nga xam ne ah moo dëggul seen gëm de seen diggante musrikin ci ñoom dara de waaw ci ñoom dara de xanaa sànni ay baat yu bon rek képp ku gëm yàlla te sellal ko yàlla dee la aar dara du dara ba nga ànd sa gëm dugg àjjana mu ne na laa naka borom bi tabarak naa yéen du mu dëggal euh, ko la xawaanin bépp rambaajakat bépp rambaajakat bépp rambaajakat ko sax ci wet bi ndax rambaaj daa jege yéefar yéefar daa jege rambaaj rafet mooy koo xam ne foo fekk kóllëre ba nga am jàmm yàqu foo fekk ñu rafetal bala ngaa bàyyi ñaawal moo ne dina am ci wax Isa Israël bi nga dégg nit tagg bi ba noppi nga ne fekk ñu ko taggoo tudd ci moom lu baaxul fekk na yaa baaxul ndax boo demee nee ne bu bu si war nut ko arrasé ni aw raaw nut ko arrasé ni aw raaw ñu dëkk boo dégg ñu ko gën a bon ñoo yor ko gën a baax ñoo yor jëf ñu baax te loolu mooy dëgg de bokk ci ñi wax lu baax di def lu baax moo gën ci ñi jëf lu bon di wax lu bon su na abaka ñoom saaba yi eh, bu nit masaa wax ba dal seen kaw da ko ne waaw yéen lu tax nga sax suñu ñaawte te bàyyi suñuy rafet rafet soo amee làmmiñ kay gis nga lu rafet loo mën a wax soo amee maam it gis nga lu ñaaw loo mën loo loo fi mën a baax du dëgg borom xel bu baax toujours ala kulli xaali lu mbir yëngu-yëngu wet nga rafet ci jëf ca lay jaar wet nga rafet ci wax ca lay jaar te loolu doo moo gën mu ne inna laa naka war laa yuhibbu du dëgëral mukk ku la xawaanin bépp rabaa jaakoon de kafoorin kuy wedde yaa kon de te mooy musrikiin yi ak naafiq yi ñooñu wax jàll na mu ni asina borom bi ne digal na li si ne ca ña nga xam yu xaatuloo ñu ngay xeex nag muy ñu xeex nag waaw mooy aaya bi njëkk a wàcc jox leen digal na ne ngeen a yu tool gi metti juróom-ñaar fukki ay banaan yàlla muñal muñal muñal muñal léegi nag digal ñëw na fayu ngeen te da ngeen mën a fay bi àdduna ko ñoom kat su li moo tooñ nañ leen de yëpp nañ leen te wa inna laa naka borom bi nag la xadi la xadiirun aji attan la alal na seen ci dimbali leen kat te dimbali na leen ñu ne ñooñu ñooy ñan mu ni la siina mooy ña nga xam ne ñoo génne leen ñu dee seen kër yi di fexee di axe te du dëgg waaw waaw ñu génnee leen te mooy Màkka daal hijratul awal bi nga la ca xew sallallahu alayhi wa sallam muy génn Màkka gën lu ci àdduna ci dëkk yi saaba yi ñëpp dañu mujj gàddaay sart la buy wéral islaam nangoo tuñ mag nga nekk ne gëm naa gëm naa dangay génn loo mën a yóbbu yóbbu loo mën a yóbbu ba ko fi muy kër muy tool muy soxna muy doom muy xarit ku ci mënta ànd yow ba ko te xam ne ànd ak yàlla gën loolu metti war mu nga doxee ne am yi te du dëkk def nañ leen ko illa an yaqooloo lu lu ñanga naan rek rabbana sunu borom noonu allah moo yàlla wax doo moom dong nag amutu ci bokk ñoom ñuy loolu am na ñuy loolu duñ ko dégg mu ne wala wala daxulaahi baj baj rek am na ca mu ne wala wala daxulaahi ko lu ne tiim soloon naa sa nit ñi boolu leen seen bi ba ci leen mu jël ñii jiñe ñii maanaam jël ñii xam nga xare moom ñi ëpp ñi ëpp rek ñooy gañ bu ñu andil ndimbal muy bu suñ woon defuloon loolu nag la ko dobat dana dana dana màbbu dana màbbu sa waa mexu euh, labbe yi wa bayihun ak kanaais yi nasaraan wa salawaatul ak kanise yi ci iwoon yi mu ne ci arab wa masaajidul ak jàkk yi ci jullit yi soo demee sawaamihu labay fa ñuy def seen saxwaay moo tudd sawaamihu biyahum mooy këni këni kadeeralaal mooy nasaara salawaatu yi ci arab masaajidu mooy jullit yi bu ne masaajidu mooy fi jullit yi daje di jàmm yàlla mun nag bu fekkee suñu borom nag fekk wóoroon julli ji daañu màbbante màbbante bu moom ñëpp màbb ndax dañuy lay ñi di lay bañ ba mu jeex reyante ba mu rek ñuy tere nag koo masaa du jàkka yi yus dëgg de eh, koo xamante nag yus ko dootul du fii aay ca jàkka yi gis nga leen tur yàlla kese la lu bari kon loolu am de waaye nag yàlla jiñ na leen ba la neex tudde yàlla ci jàkka ji nu la neex sigaret nu la neex lépp rek mu ngi ci ginnaaw boo joxalee say farata te nag wala yan suran na danañu dimbali moom allah borom ma leen sunu woo yàlla man ku ma dimbali ma dimbali la waxee na ndax ci la doomu aadama gën a war xam ne ku ma ku ma jox sa gëm ma sellal la ko ku ma jox sa doole ma may la nee naa naka borom bi tabaraka ba xaw yu aji attan la nag asiisul aji eh, tedd la dara tëwu la si na in makkarnaahum ndéem ñi nga xam ne in makkarnaahum ndéem saxal nga leen yow borom fil ardi ci kaw suuf aqaamoo ñu joxal salaatu ñu ne waa aatoo ñu joxal sakaata asaka wa amoo ñu digal bi moom ci njëkk teraanga wana wan wan wana xëw ñuy tere anil munkar cër yoon bañ waaw waaw ñooñu ñooy ñi nga xam ñooy aw mu dëkkee àdduna dëkku gëm yàlla ca na ko taw it tëre ci gëm ak nangu ak bàyyi ak joxal asaka ak digle aw ñëw ak tere lu ñaaw dunde loolee dégg de ñooñee ñooñee xay am nañu ak mut ndax dañuy dund ci islam nekk nekk jëm àjjana moo tax ma ne am nañu am te booy daal ñenn yàlla ak matul amoo lu mu jub lépp ki jëkkee lu bon mu ñu ko loolu la fay ne wax moom ba dee ci njub kasaalika la ka noonu lépp delluwaay bi mooy yema xeer kon yow leer na yow sanga yooyu ni ko si boppam bu jagee dee nag dalal rek te xam ne ñoom seenu weddi musiba ba ci ñoom lay ñëw boobu la metti faqat ko si bat weddi nañu xam ne moom la leen dëkk nag xamu looy ñoom ñii seen weddi amul solo ndax seen maam yi seen bàyyi ëpp lépp te dañu weddi woon waaye kon ñu seeni dal wa aadama nitu aadama nitu óot dañoo weddi woon wa sàmmoo dañu sàmmoo da mooy nitu saayo dañoo weddi woon wa xamu Ibrahima nitu Ibrahima dañoo weddi woon ba ñoom ñii dañ koo làkk wa xamu loolu ak nitu loolu ñëpp dañoo weddi ba gis ala xew wa asaaru mabiyaat nit ñi soo bii dañoo weddi ñu ñu commerce yi mag yi teg garab yi lañuy waaye nag yéemu ci teg wa kas sa ba weddi ma ne Moussa nitu Moussa mooy gën tëkkiwu la xew gis nga ko ci gën bani Israël ba Moussa la xew lépp waaye nag kenn ci kenn am ci mujj kenn am ci njàng yooyu boo xamante ni ànd ak moom mu eh, ne waaw fa kay fa kaana fa am baytu ba mu ñu dugg nag naa leen ba dem jot ñu maa lu nit bon bon bon li mu war a bu dee jotee mu dee lu nit baax baax li mu a dund dund bu dee jotee mu dee bu dee jotee mu dem àjjana ne amu nga ci ne jàppale tiraaka te ña ko yow jàppale amu nga fa kayfa kaana yéemal na ngay nekk nit ki sama bitil sama fakk dara du bëri ci nit ma jaxase ndax du ma nit bay dara deme raw wala may jaxasoo hmm, dama xool fa mën a taxawee rek mu ne fa nga ay bari na nag min xariyati dëkk boo xam ne alal naa ko de wóyate dëkk ba nag waa dëkk ba tax ñu saalimatu ñuy tool seen bopp waaw ndax man kat dama alaf kenn te indi ma ku la waar basak waaw jiit mbaa sa jiit ji fa yedde dama xaaw yëpp añ rob la de lakk lépp tabax yaa garab yaa lépp maa sa doon ala orosa ca mu attanateen ma waaw mu màgg la de ku ma xasan bari ñu ñu xel machine yu yëkkatiwul yëpp màgg bu ngeen ko bëggee weddi nag yéen waa Màkka wala yéen waa àdduna abalam yasiiroo ndax da ngeen doxul jóge Màkka fii àddina te ko foofu la fàttakoo ne nekk ndox ngeen xuloo bul ko xam ne yaa loolu yu xeelu lañu mën a xam li ngeen waxoon am nopp yoo xam ne moom da ngeen di bi xaar ci dëkk ci xibaar bu ñëw ci yëpp gis dëkk yi melo yi alku doon ñëpp fexe daal naka kese bii mooy mbir moo xamante ne li wér te mooy laa tax maa du gumbu du gumba al absar gis na walakin waaye tax maa gum dana gumba nag al xuloo bu xoolee da xam ne fii suñu mooy cëdd mu mu taw ki da nit nit gumba dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xool du jàpp dëgg du xool dëgg du dunde dëgg bët yi gumba yi mooy mu ni kootu xotooral te du gis dëgg nopp mënuñ xol mu di dégg lu ne te du dégg dëgg ndax da koy romb la foofu la mu bëgg nekk fi nekkul mu ne waaye sa di loolu ne ko ne te du wax nag bi wax doxoo daal ko de waaw na ko ne la ñu wax wax doxoo wax doxoo mu ne ما قدرت دنا أم تكين من تتيم أم دنا للرجل ألي ما خيام نسيل ما يبو أجدا نسيل ما يبو صلاة بدر ودنا كتي أجدا وأنا وأنا يوم لك من بس بسم الله برام تبص أجدا لك كألف سنة من من يجني أكمما تهدر جنا من يقول يمكن يوم خيام بين كتب يوم خيام مبني أتي أجدا junni ati adduna ak benn bis yu ma xam ne wax ko ay bari na min xariyatin dëkk boo xam ne am laytu joxe naa laxaawaa dëkk ba woyeetewum dëkk ba nag saalimatun aji tooñ boppam la su ma axastaa toog ma jàpp ko nag ci tooñ la waaye fekk na wa idee ci man dong la nekk almasiru mujj ñu taxaw boobu. tabaaraka wa taala sadaqa laa mawlaana al-asiim allahumma taqabbal minna qablan hasana yal na yàlla gën a nangoon te gën jàppale te gën noo ci barkeb alxuraan yal na yàlla xamal alxuraan déggal alxuraan bëgg loolu alxuraan jàpp loolu jàppale nu alxuraan génn ñu ci gindig saa ak bu bàtt barke Seydina Rasulullah nu jàng Faatiha ayatul kursi fàllaxe naa salafa ñaanal bàyyi Cheikh Salaba Sëriñ Asan Sekk ak lu mu jabootee dëkk bi ba mu àgg li wër dëkk ba mu àgg Sénégal ba mu àgg ñépp am mucc jàmm salaam xéewal naataange rawatina ngeen xam seen noppa ngi ci alxuraan jii ak fu ñu toll ñu ngi koy déglu ba tax ñuy woote muy biir réew mi ak biti yëg nañu fii ba Amérique ñiy woote ñëpp yëg nañ leen loolu nag su amee yéen yéen yéen yéen yéen Alaaji Demba yéen Thiénaba TV yéen Diédhiou yéen a liggéey lool nit ñaa nga guddi gu ne dañ may woo naawal jël nañu jox nañ ma nangam jox nañ ma nangam seetaan ne seen waxtaan ba ca Sow Diagne ca France nee seen benn émission du wari lépp dañ maa ngi man naa ko tegale fii te maa ngi ca France. Talla Diagne wax naa ko de yéen ñëpp jàmbaar ngeen jàngeen jëf ngeen xam seen liggéey ngi dox daal ah, bu ñu amoon seen numéro daañu leen waaye waaye man ñu may woo ci wét yëpp. jazaakumullahu xayran asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. خلع آدمي خلافة ملكي